ñi nekk euh, yeewi askan wi mhm. am na lu bëre li nga xam ne jot nañ ko partagé en commun ak ki nga xam ne mooy Ousmane ko mhm. ñu nekk yeewi askan wi bokk nañu ay xeex su ma nee xeex xeex politique mhm. maanaam des stratégies politiques parce que on se rappelle très bien ci stratégie bi nga xam ne mooy Déthié Fall mais ñoo am na benn mandataire ñu jël ko en attendant euh, je viens vous parce que euh, apparemment, il paraît que la dernière fois, vous disiez que je jouais à cache-cache avec vous. Vous êtes mandataire de qui hein? Vous disiez que je jouais à cache-cache avec vous. Vous, êtes euh, mandataire de, dire ce qui, en est. Ok. Vous êtes, vous de qui Moi, c'est Elie jean Malo. mandataire de la coalition. Attendez, attendez Oui. Ouais. naa ko yóbbaale xaaral ñu am position bu baax la. ok jox ko jox ko sa kii bi détail comme ça qu'on ait moyen de exploiter. c'est bon léegi yow nekkal comme Élie Jean-Gabriel Malo. Je suis le mandataire de la coalition Maître El Hadji Diouf président. Donc du candidat El Hadji Moustapha Diouf. Nous sommes tous ensemble et donc il n'y a pas euh, de fuite face aux journalistes. Apparemment, la dernière fois, nous aurons appris par la presse que euh, nous fuyons les journalistes. Ce n'est pas du tout le cas. Imaginez là où vous êtes. Un, un mandataire qui garde son véhicule de l'autre côté, il sort, il n'a pas besoin de se vers l'Assemblée nationale, mais plutôt sortir vers euh, le ministère de l'Intérieur. est rentré chez lui. Surtout que nous avons eu à passer la nuit au Conseil constitutionnel pour le dépôt des dossiers. Cependant, vous le savez tous, que le candidat Maître El Diouf mmh. était au repêchage. Était au repêchage. nous devions remplacer 3571 doublons externes. Ce qui nous a amené aujourd'hui au Conseil constitutionnel pour faire ce rattrapage. Et comme nous disposions de suffisamment de parrains, plus de 200 000, nous n'avons pas de problème. Nous avons complété aujourd'hui avec 8 517 parrains. Et espérons que nous allons Et, et Inch'Allah, si nous passons, nous sommes sûrs que notre le meilleur de ce et que c'est lui le président du Sénégal. Je vous remercie et si vous voulez ça en Wolof. oui. Il y a, l'existence d'un fonds euh, pour euh, juger ce qu'ils appellent euh, les fuites au niveau des, des fichiers électoraux. Qu'est-ce que les fichiers électoraux que nous sommes, euh, disons, à un examen. Acceptons les règles et le moment de parler euh, est passé. Il fallait euh, discuter de ça bien avant cette période-là. C'est pas en ce moment-là qu'on doit faire des quelconques reproches. Oh, après les élections, oui. Euh, si on revient sur les insuffisances, ok. Mais quel est votre avis par rapport à l'indiscipline

euh, les règles démocratiques voudraient que chacun respecte euh, ce qui a été retenu au préalable. C'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, ils risquent encore d'être les derniers qu'il faudrait qu'on fasse un nouveau tirage. Ça, euh, il, euh, en quelque sorte, euh, disons qu'ils ne cherchent que ce qui les arrange et non pas euh, ce qui est bon pour tout le monde. Voilà. Nous, nous serons les premiers à passer demain. Du moment qu'au tirage, nous étions les septièmes. Donc vous êtes dans, une position confortable. Hein Je le dirais bien, oui. C'est notre chance. Acceptons-le. Acceptons-le. C'est notre chance. très donc euh, maa ngi leen di nuyu suñu mbokk journaliste yi man euh, maa ngi tudd Alassane Thiendella Fall nekk si euh, coalition El Hadj Diouf président donc doon le délégué régional de Dakar et puis di suppléer le coordonnateur national. muy éligeant Gabriel Malo donc ñun dañu ñëw fii tey pour déposer li nga xam ne ni moom lañ ñu laaj parce que ñëpp xam nañ ne def nañ fi ñaari fan fanaan fii si ñëw déposer suñu pare suñu parrainage donc bi loolu amee yàlla def na déposé nañu cinquante cinq mille cinq cent soixante onze parrain yàlla def li ñu déposé ñu valle validé ñu quarante mille cinq cent donc dese nañu trois mille neuf cent soixante loolu la liggéey indi ko pour jox ko waa conseil constitutionnel pour ñu mën a vraiment xool suñu liggéey càmbar ko parce c'est pas évident boobu ba léegi ñu ngi ci metti na mais dañu gëm ne liggéey rek moo am solo loolu moo tax tey ñu ñëw fii seen kanam pour waxtaan ak yéen. Euh, euh, waaw. candidat yooyu déposé di ñaxtu xëy na pour man dërkiis la rek dërkiis la parce que mbir mi parrainage la ku si nekk waxoon nañ la li nga xam ne ni moom moo am nee la nii nga koy defee nii nga koy doxalee clé yi ñu joxe ñëpp wax nañ leen ne clé yi ñu leen jox bu si am problème indil indil leen ñu ko DGE boo commencé saisir boo gisee loo xam ne ni anomalie la da ko war a jël yóbbul leen ko loolu rek la donc clé dara nekku ci parrainage bi ñun liñ ci gis mooy vraiment euh, metti na terme de référence bi niñ ko defee metti na mais tamit doonul loo xam ne ni moom la war a waxtaanee léegi fi nekk ni ñu ngi si biir affaire bi bëre ñu ngi si biir làmb ji nañ bëre rek. fichier électoral bi également fiable na fiableul du waxtaanu tey parce que ñun ñëpp si la ñuy liggéey donc mënuñu ñëw ba heure bi ñu ñuy wax waxu fichier parce que déposé nañu li ñu war a déposé def nañu lépp parce que dañuy wax ne la réclamation et faite que quand on waaw léegi nag nañ def liggéey bi rek te gëm yàlla xam ne ne yàlla pare na ñu ñaan yàlla président El Hadj Moustapha Diouf jël réew mi ñu doxal ñun loolu la ñu gis ñun li ñu war a mottali mooy euh, trois mille neuf cent soixante onze incha allah euh, mottali nañu dugal nañu huit mille huit mille cinq cent cinq dix-sept moom la ñu dugal te loolu ñu dugal lu ñu liggéey la lu set la yàlla mën na si def jàmm on a validé les huit raisons waaw te bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu validé suñu quarante mille suñu région yi ñu ngi fa ba tey donc ñun amuñu problème ay région lu ñu am problème mooy les trois mille neuf cent onze te dugal nañ ko. donc nañ jàpp ñu ngi xaar maître El Hadj Diouf ci tour. mais ñu ngi si deuxième tour bi fi mu nekk nii. no maître El Hadj si li nga ko war a xaar mooy mu jël réew mi. ñu valider ko suba.